ñu ngi gërëm di sant kilifa yu ñu fi fekk di ci jiital suñu wajur représentant du xalif général des Layènes Seydina Issa Laye Thiaw di ko gërëm di ko sant ñu mu ko waxee moom ak suma papa daanaka bërki démb la woon ma koy sant parce que saay ba ma dajee ak moom daf may xelal di ma tete di ma wax xalaatam ci fu ma noo teg suma tànk di dalal xelam nag di ko ne ba may wuti mairie de Dakar waxoon naa ko askanu Dakar man ne leen suñu yàlla may ndam incha allah bi dafa am borom ñu koy woy président de la république su ma warugal mooy ma bindal ko bataaxal dem seeti ko waxtaan ak moom ci jafe-jafe yu ñuy dund fii biir Dakar. defoon naa ko ak président Macky sàll yàlla dogalul ñu toog may bëgg a dalal xelu suma wóojur ne ko bind naa bataaxal président Bassirou Diomaye Faye tontu na ma boole na ma ak ñaari kilifa ci gouvernement bi te fas yéene naa dem toog yi ak ñoom waxtaan ak ñoom ci jafe-jafe yu Dakar di jànkoonte di gërëm tamit bépp kilifa diine bu ñu fi fekk kilifa aada kilifa cosaan di gërëm nag suma ay xaritu bopp di euh, sëriñ euh, Idrissa ak sëriñ Cheikh Mbacke di leen di jox seen wàccuwaay di nuyu tamit suñu xarit di suñu jigéen soxna Astulaay Thiaw di ko jox tamit wàccuwaayam di nuyu jeunesse buñ ñu fi fekk di leen di bëggee nag bu baax a baax parce que damay faral di wax saay bu ñuy wax waxu jeunesse ñu ne jeunesse mooy ëllëgu Sénégal mën na leen balaa ngeen di wax waxu ëllëg ngeen wax waxu tey jeunesse bi du ëllëgu Sénégal jeunesse bi mooy Sénégalu tey et la preuve nañ ko ci seen taxawaay ci seen pas-pas ak ci seen Pastef donc ñu ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla kattanal yàlla na leen yàlla aar parce que Sénégal yeneen Sénégal sénégalais yéen kon nag tey lu ñu fi indi tey mooy. fësal suñu cofeel fësal suñu yéene ci Dakar waxoon nañ que ci élection yi lu ñu doon wootee mooy Dakar bi ñu bokk Dakar bi ñu bokk amul parti politik amul diine amul tarixa lu yàlla dogal mooy Ndakaaru moom la ñu bokk te moom la ñu liggéey fësal ko parce que à la ci bés yi dañu fi jógee keneen ñoo remplacé ñaan yàlla nag ku ñuy remplacé na bàyyi xel ci lu ñu fi ci ci xalaat ci gis-gis ak ci yéene parce que fii la ñu juddoo fii la ñu fii la dëkk te fii rek la am te kenn duñu liggéeyal suñu dëkk ñu nekk ko mën a liggéeyal suñu bopp kon nag dig rek ñu ngi woon fii ci Cambérène doon def pose première pierre bu CEM bu Cambérène tey nag yàlla ci baaxam mu may ñu tey ñu fekkee tey bés bi ñëw def la pose de la première pierre ànd ci nag ak le représentant de l'État te mu nekk lu am solo parce que sous-préfet bàyyi léppam ñoo fekkee tey bés bi loolu lu muy sindeel mooy état ànd na ci projet bi te ñun lépp lu ñuy def dañuy góorgóorlu ba kenn bañ ci gis euh, boppam daanaka bu ci kenn mer mooy jeunesse bi mooy askan bu fi yew mooy état bu ngeen xam ne nii moo ñu may ay sañ-sañ ñu koy way ay compétences transférées ma bëggoon tamit wax à l'endroit de monsieur le maire de Cambérène Doudou Pathé ne ko suñu direction planification ak développement durable ñu ngi liggéey ci benn projet bu ñuy waaj a soumettre Ageroute particulièrement soumettre ko yenn ñu nekk fii ci mairie de Cambérène ak di ñaan yàlla tamit kilifa yu fi nekk mooy les chefs religieux ñu daal di ñu jox seen bénédiction pour ñu mën a tabax fii benn parcours sportif buy longer tout la VDN 3 à l'image du parcours sportif bu nekk ba di Dakar ci Corniche Ouest may wax que loolu dafa am solo parce que Dakar dañuy waaj a dalal lu ñuy woowee les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 bii mooy première fois bu ñuy indi Jeux olympiques fii ci Afrique yàlla dogal nag ñu koy indi Dakar moo tax laata ñuy egg ci Dakar 2026 noonu lañ def suñu kéem kàttan ba suñu gan yi suñuy ñëw Dakar ñu ban ñu xeeb mooy ci lan mooy góorgóorlu ba Dakar mën a am ay infrastructures sportives moo tax bii mooy premier terrain synthétique bu ñuy lancé ci Dakar mais fii ak Dakar 2026 te ñu fas yéene biir commune Dakar yi yëpp 19 communes yëpp ñu teg fa 19 communes euh, terrain synthétique liggéey tamit ay infrastructure sportive wax naa ko sànq ay parcours sportif am na parcours sportif bii am na tamit parcours sportif bu ñuy euh, waaj a tabax ci corniche HLM ak tamit. parcours sportif bu ñuy waaj tamit tabax ci lu ñuy woowee le boulevard de la Gueule Tapée mooy boulevard buy jógee obélisque di dem ba Abbas Ndao loolu pour que Dakar 2026 la jeunesse dakaroise mën a gis seen bopp mën a bokk parce que am nañ yaakaar que suñu génnee ci Jeux olympiques yi am nañ yaakaar que Sénégal dinañ fi découvrir des de talents et je tiens à rappeler que Sénégal mës nañ am des médaillés olympiques su may tudd ay médaillés olympiques su ma xel day dem ci Amadou Diaba kon nag mbokk yi fu may daanalee mooy euh, di wax à l'endroit du président de l'ASC que dégg naa leen incha allah dinaa ci jokkoo ak monsieur le maire de Cambérène dinañ leen jox bus parce que gis nañ exploit bi ngeen def parce que ngeen jël tey seen équipe jëlee ko benn niveau yóbbu ko à un niveau supérieur dañ leen ci félicité mais tamit ñun tamit askanu Ndakaaru dañ koy ndamoo parce que tey suñu xamee que am na équipe bu nekk bi Dakar bu ñu mën a représenter au niveau national kooku suñu fierté la kon nag mbokk yi di gërëm ñëpp di sant ñëpp euh, di jégalu nag ci euh, mbokk yi parce que kàddu yi des fois dañuy dañuy fàtte di lim yenn kilifa yi wante ku lim jum euh, lu ñu bëgg a wax daal mooy gërëm ñëpp sant ñëpp te di ñaanal askanu Dakar yàlla bu mën yàlla na yàlla. aar yàlla na leen yàlla suturaal yàlla na leen yàlla kattanal ñu leen di gërëm di leen di sant mbokk yi